ne nag kon pièce laak naka noonu ak xaalisu këyit bi léeg-léeg ndax neenu nanu koy bindee daal dafa doon loo xamante ni euh, duñu ko xam bind yi dafay effacé loolu nag di jafe-jafe yoo xamante ni ñoom ñu ngi koy jànkonteel askan wi rawatina ak bu ñu bëggee rek fay ci woto yi ñu bari ci chauffeur si euh, duñ leen ko nangul euh, BCEAO nag ma ngi dalal xel yi ne lu mu ci mën a doon xaalis yooyu nañ jàpp ni xaalis yu baax la te naka bu amee benn jafe-jafe tamit nañ dem ca banque ba wecciku ko te xam ni daanu leen ko nangul diwaanu ko Thiès soxna ne dañoo mànkoo joxante loxo soobu euh, ci mbay ma foofe di def seen kéemtalaay kàttan ñett ci hectare nag di ngeen gis ne ay soxna ña nga fa di daan seen doole di ko def nag bu baax a baax ca dëkk ba nga xamante ne nag daanaka euh, ñu ngi ko duppee kon njembe jeng njembe jeng googee soxna yi di daan seen doole lu ñu bëgg rek moom mooy xeex ñàkkum euh, xëy mi waaye tamit fexee ba ñu bari mën a jote ci xëy ñuy waajal nag bëccëg bi ñu jagleel jabet xeex jàngoro ji ci àdduna wërngal këpp diwaanu Ndar lanu seetlu nag mooy tolluwaayu jabet bi nag jéggi na dayoo téeméer boo jël ci askan wa euh, fukk ya am na nanu ko ci jamono jooju it ñu gis ne yeneen ni euh, kon euh, dëkk yu ko soriwul dara tamit jabet ba ma nga fay lëmbe li ko waral nag xam ngeen ni bokk na ci li ñuy faral di wax yaram bu bari hypertension naka noonu it ñàkk yëngatu mbokk yi ponk yaa ngi nii bu jeexee nag daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenikaay bu ngeen taaxee lu tuuti ñu faram fàccee xibaar yi dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ñu ko waxee woon ci ndoxte lii président euh, Macky Sall nag mi ngi wax joxañ rek euh, baaraam ku jekk politique génne li ñuy def nag moom yëngalu ko ndax euh, Sénégal mi ngi ci loxo yu baax ay kàddu yu mu yëkkati la moom président Macky Sall ca France ci bi muy janoo rek ak waa mouvance présidentielle nee na nag li ko yitteel mooy li doxal Sénégal loolu képp di kàddu yu mu yëkkati ñu teewlu président Macky Sall ca France. Sénégal ci loxo yu wóor la nekk Sénégal du réew boo xam dañ koy pëtam pëtamee du mën a nekk am nga fula de naa leen na xel yi nee laata may jël réew mi sax mënuñu ma xoqatal ginnaaw tey bi nga xam ne yor naa lépp ñun liggéey moo ñu soxal xeex bi ñuy def mooy xeex pour le développement du Sénégal xeex ngir Sénégal raw ci réew yu Afrique yi yàlla ñuy baaxee ñu ngi am de nouvelles ressources pétrole gaz ñëw fekk li fi amoon yàlla ñu baaxee ay nawet yu baax kon loolu moo am solo transformer réew mi fexe ba góor ñi jigéen ñi ndaw ñi am ngëneel ci seen dundin ñu yokk ñoom ñëpp loolu mooy sama combat nga ku muy kàddu yu tukkee ci président euh, Macky Sall réew yu Afrique yi nag euh, sax dañuy euh, jànkoonteel ay jafe-jafe ci wàllug njiit rawatina ak gouvernement yi kàddu yi nag mi ngi tukkee bi yoon ci bàcc li mi doon jiite ab conférence de presse tomb ba nag mooy réew yi ci Afrique nan la ñu mën a def rek ba génn ci jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel léeg-léeg ci wàllu crise nu ñu fexee tamit ba gën a ñoŋal démocratie bi ci tomb boobee nag lañu sukkandiku woon ngir amal boobu ndajeek taskatu xabaar yi ci gis-gisam nag mooy président yu Afrique yi danoo war a rek buñ leen dénkee ab nguur buñ ca defee diir gañ ca war a def ñu able te xam ni loolu moom mooy yoon ñu ànd ceeg Abi fay Mardien lépp luñ ci mën a wax moo di démocratie gi dafa tëddeewut njaaxanaay benn yoon fii ci diwaanuk Afrique li li di xalaatuk professeur bàcc li mi doon anime ab conférence gu Trust Africa amaloon je parlais de défaillance du leadership. ñu wax ko wàllum leadership dañ cee am jafe-jafe gu bëri ndax itam boo xoolee ñàkk muus bëri na ci eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waay takk der yi war aar askan wi ñoom ci seen bopp boo seetee dañ naan sax dañuy contrôler ñoom ñooy seet waaye contrôler ndax tamit Euh, ñoom dañ leen di dicter lu ci bëri te boo xoolee léeg-léeg sax ñi nga xamante ne ñoo di askan wi duñ ko mën a nangu li ñuy def. à ceux qui contrôlent l'État pour le moment présent la grande masse. njiit yi ñu am euh, ñoo ñu ko teg ñoom ñoo nekkul nanu ware. waral na itam mu def ab saytoog rawatina itam jàngat ñel dëkk yi nekk fii ci Afrique yoo xamante ni itam. seen doole yemut. malgré les alternances. parce que ay bëri na fi li koy indi ji si bëri bokk na ci tamit ay coup d'état militaire yoo xam ne nemmeeku nañu ko waaye la ci ëlëmu xel moo di ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite ñoom jànguñu ci li nga xam ne kañu wuutu loolee la doon liggéey waral na itam saa su nekk rek day nuru ab ndëgg sa prédécesseur à la chute. la ca gën ca moom sax moo di tëral ay pexe yoo xamante nit des nañuy génn. ci crise gañu ne ndaw ñi ci seen boppam it ñoo war a def benn prise de conscience ndax tamit seen génération la ñu moytandiku di jàdd waaye wala sax ñuy def ay mbir yoo xamante ne ëllëg euh, du doon loo xam ne lu rafet la baña topp rek li ñu duppee tendance waaye dañuy def loo xam ne te dis nañ leen di naw waaye ananan rek la ñuy gën a mën a def ba crise yooyee ñu génn ci ba it gën a dëgëral suñu démocratie doon ab laaj goo xamante nit samp na bëri lool ay tontu fii ci diwaanug Afrique bu ñu sukkandikoo ci bàcc li wax ci màndaa yi nga xamante nit des nañ koy yemale ca anam ba nga xamante nit wote nañ ko ca cartik ndaw réew ma mu doon loo xam ne kenn mënu koo faxas bu fekkee ne itam bëgg nañ réewu Afrique yi gën a mën a dem ca kanam Habib Faye ñuy waajal bëccëg bi ñu jagleel xeex jàngoro jabet euh, ca diwaan Ndar moom tolluwaayu jàngoro jooje nag yéggi dayoo ndax téeméer boo jël ci askan wa neenu fukk am nanu ko boole kook dëkk yi ko wërit naka noonu seetlu gi téeméer boo jël euh, kon lu toll ci ñeenti am na nanu jàngoro jabet euh, bi mu nekk loo xamante ne kon na ngay lëmbee li koy indi nag ku ne xam na ko lu soxal yaram bu bari ca la hypertension ñàkk yëngatu foofee ca diwaanu Ndar nag ñoom ñooñee amee jàngoro jabet bu ñu sañoon daal ñu tegal leen benn unité unité boo xamante ne dina leen mën a taxaw euh, ci wàllu paj ga Ousseynou Diop Habib Seck. jabet bi ci diwaan Ndar géej bu fekkoon dafa daan temp léegi ma ngay njàpp njàpp metti loraange bi mu njëkk a def bokk na ci askan woo xamante ni ma leen di indil ay jafe-jafe ci xayma ci diwaanu Ndar géej semaine bu jot ñett ci doomu aadama daañu amal ay amputation ci hôpital régional bu Ndar. or chaque semaine dana am trois amputations et amputation yi ngay gis à Saint-Louis yëpp amputé wuñu leen à l'hôpital de Saint-Louis d'ailleurs a yokku téeméer boo jël fukk yi ak lu teg am nañ ko ci diwaan bile. 10 virgule pour cent en 2011 jusqu'à présent amul unité de prise en charge du diabète 8 pour cent wu doomu ndar yi dañu obèse maanaam seen yaram dafa jéggi dayo ñu ni euh, yëngatu dafa baax même enquête Abdou Kane yooyu wax ni 56 virgule 2 pour cent doomu ndar yi dañu sédentaire. association bi nga xamante ni nag ñooy indi ndimbal jëmmale ko ci diabétique yi jàpp ni kon mbir yi jóg jot na te diwaanu ndargee kilifa yi dañu war a gën a fullaal xeex bi. tooguñu ne yas yasar dañu toog di liggéey di liggéey liggéey boo xamante ne mérité na seen autorités yi nekk si région bi xam liggéey bi ñuy liggéey mooy lan ndaxte na bu ñu fàttee une des fonctions régaliennes même dans le cadre des compétences transférées aux collectivités locales mooy santé daf ci bokk. diabétique yi la leen gën a yitteel mooy ci diwaan bile. ñoomal fii bërëb boo xamante ni ku am feebar bi. daan ko fi mën a faj ci doom benn complication. ma ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ousseynou Diop euh, boulanger yu euh, Sénégal nag euh, grève ba nu namoon a amal dellu nañu ca gannaaw dibeer ji lañu ko jàppoon ne dañu cay sóobu te bi yoon nag du amuk àpp waaye démb gannaaw ba ñu dajee ak kii jiite au conseil bu dialogue social nag am na lu ca tukkee lu dal seen xel ba tax na nag ñu daal di koy tegandi rek fi mu ne nii ci suuf ami Aminata Mbaare Sow di jóop ci leeral. ñu daal di siife li dakkal grève bi nga xam ni tàmbalee nañ ko talaata ak tey boulangerie yi te tëjoon seen buntu ne duñu defar li nga xam ni sénégalais sopp nañ ko loolu di mburu bi ñoo ñëw nag nañ lépp madame la président comprendre na ko ñim ci war a waxal depuis démb ñu ngi ciy wax ak ñoom te am na liggéey bu mu ci jotoon def depuis juillet jox na leen ko donc nag moo tax ci loolu ñun ñu décider euh, suspendre mot d'ordre de grève bi jusqu'à nouvel ordre grève bi daal di dakk loole nag bokk na ci li ko waral ndaje bi nga xam ni jot nañ ko am ak kii di présidente du haut conseil du dialogue social. mënuñu grave di dem depuis mardi te kenn du leen ko kenn du toog ak ñoom ci kaw loolu laa toog waxtaan ak ñoom waxtaan ak euh, président Guèye waxtaan ak jàpp pour que ñu dakkal grève bi mu metti lool parce que ñoom dañu ñëw mais ñi nekk seen ginnaaw. te xam naa ne métti na si ñoom trop. li nag di ab départ bu bees ngir ñu daal di tëral ay waxtaan yu dëggu ci biir secteur boulangerie. mburu farine li muy jar actuellement tey su ngeen demee ci dépôt yi ak magasin yi mooy seize mille six cent dix-sept mille ñu ko doon jaayee trois mburu mi mun na continuer jar fanweer mais buñ ci yokkee fifteen boulanger itam dañu bëgg ñu yokkal leen prix mburu bi mais nag ñun ñu dul mën a nangu mooy que. ñu jël farine bi yóbbu ko 18000 ba pare bàyyi mburu muy jar fanweer xam nga loolu yanuwul maanaam. ay ndaje nag fas nañ ko yéene amal ak ministère yi nga xam ni seen loxo dugg na ci mbir moomu lee ngir ay solution durable ak stabilité ci secteur boulangerie bi nga xam ni at yi ñu weesu bëri na coow. Mbara ñu lay jaajëfal bu baax a baax ca diwaanu Kaolack ni ñu ko waxee woon ci euh, ponk yi askan wa nag am nañu lu leen metti nee ñu euh, ci euh, xaalis bi weccet bi rawatina ba ci yenn ci billet yi ndax léegi léeg daanu gis nag mbind ma du leer ba tax na bu nu ko joxee ñaare ab chauffeur ci woto yi duñu leen ko nangul ba tax na nag ñu nekkoon nañu ko xoolaat waaye directeur bu BCEAO nag ma ngi koy dalal xel yi xaalis yooyu dara newu ca te nag bu amee jafe-jafe mën na yegg ba ca banque ba ñu wecci leen te dara du ca am. Pape Mbaye Diaw Faly Gueye mu doon loon ne meeku commerçant yi ak transporteurs yi nangootunoo jël pièce de monnaie yi nga xamante ne danoo raaf moo na day xaalis boobu ba léegi amul benn dogal buy wane ne baaxul loolu nag indi ay jafe-jafe ci population bi boo yoree sa pièce muy 100 francs wala 200 wala 250 wala 500 léeg-léegi boo demee ci commerce yi wala nga dugg euh, oto boo ko joxee dan koy dan koy delloo dañuy bañ loolu nag damaa bëgg wax lu leer nañ ab xaalis euh, BCEAO moom mooy décider xaalis bu waratul circuler pièces yooyu yu baax la pièces yooyu war na continuer circuler bis bu lu mel noonu amoon ñun ñoo koy yëgle te amul. BCEAO yokk ci tamit ne képp koo xamante ne ni am ngay ay jafe-jafe ngir nga mën a utiliser pièce de monnaie yooyu mën nga ko yóbbu foofa ci seen kuréel ga nga daal di ko fay wecceeku. daje na nag transporteurs yi daje na nag commerçant yi. waxtaan ak ñoom li dal xel mooy ne ban ñu ne yéen BCEAO bi ngeen waxee gëm nañ leen loolu moo ci ëpp solo li ci tegu wax nañ leen ko képp koo xam ne ne yore nga fi pièce nga bëgg ñu weccil la ko àllarba ak alxamis gune agence BCEAO bii nekk Kaolack ci watu marché bi boo fa demee danañ la ci pièces yi waxtaan naa tëm banque yi ne leen seen benn agent amul droit ñu indil ko pièce muy wax ne duma ko jël. ci visite bi nga xamante ni amalaan nañ ko ca foire internationale bu Kaolack directeur BCEAO bu Sénégal di xamle ne région bu Kaolack am na ay opportunités yu bëri te opérateur économique yi bu nu lëkkaloog système financier yi mën nañoo relancer économie région bi. ñu yegg it ba euh, commune bu euh, Tànkong ak euh, juróom-benn fukk ci dëkk yafane ñu ne ci dëkk yooyu yëpp benn képp nag moo ci am post de santé mu nekk loo xamante ni xam ngeen ni doy na waar te nag askan wa dañuy jànkonte lay jafe-jafe bu ñu ca bëggee jotee ci wàllum paj mais ñu ca bari dañ leen di yóbbu mbaa boog dañuy faaw ñu yegg ba réew ma Gàmbi ngir mën a faju yemul rek ci wér-gu-yaram courant tamit amuñu ko ci dëkk yooyee Bakary Konte la ñu ci àndal ak Xaali Jaame population yi nekk si Sinthiou Tankon nekk ci ay jafe-jafe yi tar xamatuñu fu ñu jëm. ku fi feebar ku ne da da ngay sonn doo am fu fay fajoo boo fi boo jigéen wéerul bu fi nekkee pour ñu yóbbu la hôpital sax problème ndax amuñu yoon amuñu dara wax dëgg yàlla ñun jigéen Sinthiou tànkoon jigéen fii Kabada dañoo sonn amuñu dara. boo feebaree balaa ngay dangi dangi fii ba Carrefour te fa Carrefour nga mën a fajoo yenn saa yi da ngay dem sax ba wasin ci yoon bi wala nga dee ci yoon bi xale bu fi feebaree même bu dee pali moo la jàpp doo am fenn fay fajoo. gox bi nag am frontière ak bi nekk ci ay jafe-jafe maladie sax dañ leen di évacuer ci réewu bi doomu benn doomu dëkk bi nag moo daal di jóg tabax benn post de santé pour nag génnee population yi ci jafe-jafe yi ñu nekk. li ma ci pousse mooy dama judd ci gox bi mu ngi gox bu làkku te poste de santé xaw fi tumuranke lool. ma gis ne di tale ci samay maam ba ci samay yaay ba ci samay papa ku fi feebar da ngay am problème fajukaay da ngay am problème fooy fajo bari na ñoo xam ne buñ fi feebaree buñ ci feebaree Gàmbi lañ leen di yóbbu buñ leen yóbbee Gàmbi nag lu ci yàlla xam day ma judd ci biir lii màggee ci xàmmee ko mu doon sama maanaam mu doon sama métti lu lool lool lool lool. nekk nag geste boo xamante ne autorités locales yi ñu ngi koy rafetlu. nous sommes donc euh, venus visiter ce que les populations avec leurs propres moyens ont permis de euh, réaliser c'est-à-dire cette structure extrêmement importante qui est très éloignée de la structure mère c'est-à-dire le centre de santé de Bounkiling. Vous savez que quand vous avez des structures comme ça, lorsque vous n'avez pas de médicaments, ça ne sert à rien. Hein? Les moyens thérapeutiques, c'est les médicaments, et ce sont des médicaments essentiels, des médicaments de santé publique qui vont forcément servir cette localité. J'en sais quelque chose parce que nous tous, nous sommes de cette localité. Nous souffrons d'un produit de, de problème de produits médicaux. population yi nekk fii si Sinthiou Tankong kontaan lool ñuy xaar nag ci nu ma gën a gaawee sanitaires yi daan leen affecté personnel bi ci poste santé bi pour nag ñi bañ a jëm ci yeneen réew jërëjëf Bakary Konté Ndiemba Dieng nag euh, ma nga ca boori Thiès diggam ak Thiès ci juróomi kilomètre la toll soxna yi nag foofee ñi ngay daan seen doole bu baax a baax ci wàllu euh, mbay ma boo fa demee nag ñett ci hectare suuf euh, soxna ye ñu nga fay yëngu ñu ne nag dëkk boobee booy xool sax nag ñàkkum xëy daal daanaka amu fa ndax soxna yi fexe nañu rek ba samp ay entreprise yoo xamante ne nii ñu nga cay dimbali seen bopp di ca dimbali ñeneen Cheikh Anta Diop say la ñu ngi fii ci Ngembe Kër Massaer digganteem ak commune bu Thiès toll na ci juróomi kilomètre fii soxna yi ñu ngi fiy yëngu ci wàllu mbayam dër daanaka ñetti hectare lan leen xàllal ñu fiy mbay mbay moo xamante ne amul benn tooke di mbay mu sell waaye ñoom de nee nañ bay dundee la ñuy def fii ci seen gox. ñu ngi génne ndànk-ndànk dara ci tool bi mais xam nga ñetti hectare koko mi ngi fii tàndarma mu ngi fii limon mi ngi fi papaye mi ngi ñëw di ngeen gis fële ca catu tool ba fële fële fosse compostière ba fa la dem ñu tàggat leen naka lañuy ñuy defee compostage boo jëlee fukki jigéen biir ngembe juróom-ñaari bi ñu xëyee Cees lañuy yenn ca marché bi dóor waar ba pare dellu si waat taal añ doog a ñëw ci tool bi loolu dañu bëgg mu jeex ndànk-ndànk ba ñu toog fii ñu jeexital bi mooy koom bu wér tukkee fi góor ak jigéen mag ak ndaw mën ci gis seen bopp. fexe nag ba soxna yi ñu tàggat leen liy meññee ci tool yi ñu di ko jariñoo di ko jaay def ko seen gafaka mën a dimbali kër yi jigéen ñu bëri ci tool bi lañuy xëy du ci suturloo di am lu ñuy yóbbu seen i kër ba lépp lu fiy meññee de dañu koy yóbbu jaay ji ko biir Thiès. moo ci wàllu koom-koom mun jaayee def suñu poos dinañ fi bay kii tamaate korkomb ak kaan ak jaxute ak basante ñu ko fi bay ak kanja li ngeen di kees lañ koy jaay. loole tax nag ay partenaires jóge la ci Allemagne gis liggéey bi nga xamante ni soxna yi Ngembe yi ñu ngi koy def ñu indil leen lu tollu ci benn hectare samp ay raakool di indi ndox goutte à goutte utal leen ab teen bu mag ngir ñu mën a bay bay bu sell fu ko sorewul Bambey bàmbay googee nag daara ya nekk ca uh, commune ba moom tey waaye defal yàlla ya ñoo taxaw rek nag ngir dimbali ndongo yi moo xam ci jumtukaay ci wàllu informatique ba ci lu ñuy soxla moo xam kayeeg téereeg uh, lu mu ca mën a doon lépp rek ngir jàppale leen uh, bu baax a baax ngir lépp département bu Bambey njàng ma nag gën faa mën a ñoŋ dañu fay fekk ji Babacar Diouf ak ndongo ka ci caméra bi ndongo Ndiaye. nekk gi ñu nekk xale yi ci classe yi tax nañu gis yenn jafe-jafe yi nga xamante ni ñenn ñi dañ koy dund lool yi tax ñoom di doon yaay doon tamit ay enseignante ñu bëgg ci indi ay saafara ay satuyat mooy présidente association bi nga xam ne ay jigéenu jàngalekat ñoo ci nekk. boo xam ne day xeex day jàppale xale yi nga xam ne seeni waajur dañoo néew doole donc li ñu seetlu suñu école yi. xale yi dañuy am problème pour jënd fourniture dañuy am problème pour bokk ci ay cours de renforcement wala ay cours à domicile léegi association bi ci xalaat boobu la jigéenu jàngalekat yi nekk biir CEDEPS e e daal di xalaat ne dañuy installer association boobu fii biir Bambey pour jàppale xale yi nga xam ne seeni waajur seen loxo dañoo néew doole. ñeneen ñoo xam ne nii gis nañ yeneen jafe-jafe ci élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci Bambey ñoo di étudiants yi nga xam ne dañoo regroupé wu ci plateforme bi ñuy wooye plateforme pour le développement de Bambey Sivan Damsen moo leen jiite. ñu jàppale leen ci ay jumtuwaay jumtuwaay yooyu noonu nag bon soo xoolee benn jàngat moo ko def parce que ñun on a eu à faire ces établissements xam nañ ñoom li ñu am xam nañ li ñu mën ak li ñu mënul su ko def très tôt on ñun ci li nga xam ne jàpp nañ ne établissement yi amuñu ko nañ fexe apporter foofu noonu quelque chose loolu moo tax école bu nekk ñu jox ko machine jox ko imprimante jox ko IC jox ko aussi ay raamu feuille blanche mu di ay yoo xam ne nii yëpp dem nañ ci école u Bambey yi lépp nag pour rek xale yi gën a mën a jongante ci concours ak examen yi nga xam ne ñoom la ñuy amal ci Sénégal ñi ngi ko doon wax rek euh, démb ci suñuy euh, xibaar muy nag li ñu duppee autorité euh, paternelle bu ñu ko déggee nag mooy kilifteef nga xamante ni kon baay bi am na ko ci doom loolee nag ñu doxuñ ko ci charte bi tënk njaboot gi ci Sénégal loole nag la ñu bëgg li ñu naan autorité parentale maanaam kilifteef ci ñaari waajur yëpp wuutu ko ndax ay jafe-jafe dañu koy faral di nemmeeku ci aji dencante gi rawatina bu amee ay jafe-jafe ndax dañu xool ni doom yi sax léeg-léeg ci wàllu yorin weeg mën a doon ay jafe-jafe yu metti dafay faral nag di euh, tegu ki jiite mbootaay gi ëmb soxna yi yëngu ci wàllu yoon fii ci Sénégal mooy sàkku li nu mel Fatimata Touré lañu ci àndal ak Gervais Yao ñu adopté ko wone ci atum 1972 tey nag code de la famille ab laaj sampu di rek laajte ndax jotul ñu daal di koy jooyanti ñu gis ni ci article 277 puissance paternelle am fa doole lool. papa jëkkër ci de la famille mooy chef de famille donc mooy décider fu famille bi dëkk mooy décider fu doom yi di jàngi mooy décider lii mooy donc bu safaan amee euh, bu bu safaan amul sax yaay mënu ci lu bëri lu papa ji décider dafay mën a ànd ak moom ci parce que papa mooy chef comme jëkkër ak jabar dañ ne bu ñu xasee ba sëy ku nekk war nga mën a représenter sa morom cest à taxaw sa morom fu mu nekkoon waroon nañu mun permetre puissance paternelle bi ñu def ko puissance parentale ci biir code bi ñu jox ci góor doole bu bëri lool. boo xam ne dañuy tukki dem lu yàgg bàyyi seen njaboot léegi xale bi dina soxla ay kayit ci njàngam wala ay kayit même ci fajoom euh, war a am autorisé dina dina ñàkkloo xale bi. donc ay opportunité yu bëri. bu fekkee nag attention dafa am wala sax divorce. moo xam ni rek am nga droit ngay ji. nga ko ñuy eh, jéggalooti ci eh, élément boobe ñu àddu nag ci ndaje eh, mi doon am fële ca Glasgow muy pays réew bu Écosse mu ñeel nag rek lépp lu jëm ci coppiteg jaww ji COP 26 boobu nga xamante ne boole na ay réew yu baree bari ñu ne nag Sénégal daal waruñu seetaan tey intérêt yi nga xamante ni réew yi am pétrole dañu koy am Sénégal ñu fàtte ko ci foofu it dañu gis ni ay financement waxoon nañ ko war tukkee ci réew yi am doole yi ñu war koo jàpp jàppale euh, réew yi nga xamante ne seen doole taxu koo demee noonu ci coppiteeg jaww ji financement boobu nag koppar yi dafa dese euh, daje ñi ngi doon wax sax ne lu tollu ci téeméeri euh, kon milliard daanaka rek ci dollar mooy li nga xamante ne mooy càkkutéef bi ñu teewlu Baba Dramé moom mooy directeur bi ñu dénk wàllu environnement bu Sénégal ay kàddu mu yëkkati Asmalik Diop boo xoolee réew mu mel comme Sénégal nga tàmbali exploiter pétrole ak gaz bu ñu xëyee tey rek ne dañ koy arrêté ngir dem ci yeneen énergie euh, énergie yooyu dinañu jural ay jafe-jafe moo tax président de la république daf ci am gis-gis bu leer boo xamante ni transition bi bi muy def discours am 76e assemblée générale Nations Unies waxoon na ko fa bu leer nañ àddina dégg ko donc ñun ci négociation position boobu nga xamante ne moom la président de la république teg ci loolu la ñu tënku ngir mën ko défendre bu loolu weesoo liñ fiy waxtaanee bari na ñu ngi waxtaanee maanaam problème mu perte et préjudice maanaam tey euh, bu ñu amee maanaam benn mbënd boo xamante ne day jur ay yàq-yàq si suñuy dëkk wala ñu am érosion côtière boo xamante ne day yàq lu bëri naka la ñu war a mën a def ba communauté internationale mobiliser xaalis boo xam ne dina permettre ñi nga xamante ne am nañ ci ay yàqu-yàqu ñu mën leen a ñu mën leen a taxawu. bu ñu waxee changement climatique nag wax réew yi nga xamante ne amuñ doole suñu xel day dem ci naka la ñuy def ba mobiliser xaalis bu doy boo leen fàttalikoo. atile ci ginnaaw ci biir euh, waxtaan yi ñu doon am ci conférence des partis réew yi am doole newoon nañu at mu nekk à partie de deux mille vingt dinañu maanaam mobiliser lu toll ci téeméeri milliards ci dollars ngir jàppale réew yi nga xamante ne amuñu doole ba fii ñuy waxee nii tey xaalis boobu mënuñu ko mobiliser liñ ci mobiliser néew na par rapport ak li nga xamante ne moom lañ doon sant donc fi mu nekk ñun dañuy pousser parce que waxtaan la. yegsi nañu ci xët yu njëkk yu yéenekaay dañu ci ànd ak Serigne Saliou Seck dal leen ak jàmm nataalu président Macky Sall bu mu costume karavaatu takki lonet fas kanam ga moo nekk ci xët wu njëkku l'observateur journal uri 15 angle corniche bi ne njiitu réew mi di président Macky Sall ca Paris di France ga mu nekk fa la toll di artu dinaan nay leer amul kenn wala lenn lu ko mën a xoqutal ndegam bi mu nekkagul président de la république la faale wutoon ku koy xoqutal waxu malaaka bi ko yàlla tegee ci bopp réew mi ba tey ci journalu Futurs Médias bi président Macky Sall dinaan am na ñoo xam ne ku leen topp ci seeni mébét dina la tax a def looy ba tax muy xamal militam ya nekk foofee ca Paris ngir ñu jàppale liste yanu tànn ci élection gox-goxaat yi nu dëgmal waaye te waajal élection falum député yu atum 2022 ci noono te tabb na fa vice consul bu Paris di madame Soxna Awa Diop Mbacké def ko ministre Le Soleil yéenekaay ne gannaaw loolu itam njiitu réew mi di président Macky Sall daal dina sargal juróomi doomu réewu continent bi te ci ñooñu Mohamed Mbougar Sarr ak Felwine Sarr ca bokk L'Observateur ne Mbougar kay commandeur la ko président décoré gën a neex boo leeraloon sa position ci borom ñaari tur yi laas yéenekaay ne waale ba nekk bindkat nekkit xeltukat ci wàllum bind moo xamle lu ni mel ba noppi ne Mohamed Mbougar Sarr chance dëgg la ngir lijjanti ñetti problème keneen ku bindub livre boo xam ni da caa dolli problème moo di jaari saw Les Échos yéenekaay ne jaari saw mi fi gàddaay yoon ba askanu Sénégal yépp seen bopp ubu ñu nekkoon ci njàqare ci ay saaga la mu jéeg ñoom ndax nag journal bi nee na ci roman bu yees bi moom jaari saw bind duppee ko je pars la mu ca xamle moo di la mu nekku ca li doon léppi ñépp te lu ne ku ne nekk ca moo di élection gox-goxaat yi nu dëgmal l'info Sud Quotidien ak journal enquête ñoom ñépp ci mairie bu ndakaaru lan xëy di ca wax boole ca di xamle ne du yomb journal l'info ne la guerre des six moom faawu mu am mënul ñàkk ndax nag boo jëlee juróom benn candidat yi koy xëccoo muy Pape Diop dafa bëgg dellu ci aljana joo xam ne da koo rëccoon Soham Wardini mi nekk maire par défaut noppeegul ngir joxe gi Doudou Wade moom naam ne PDS dooleem wàññeeku na ci capital mi yàgg gént nekk maire bu ndakaaru moom la waa bennoo bokk yaakaar ne affaire bi yow la Barthélemy Dias nekk susu waa ndakaaru ci tànki mentooram di Khalifa Babacar Sall la jaar Mame Mbaye Niang moom journal lee fa xëy samp laaj ne ndax nekkul candidat boo xam ne président Macky Sall moo nekk ca gannaawam Sud du Quotidien moom bind ci waxatam ne mortal combat en vue yéenekaay bi ne la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne bennoo bokk yaakaar di yeewi askan wi wàllu Sénégal ba ci bokk gis-gis amul kenn ci ñoom koo xam ne manees nanoo wax ni mooy am ndam waaye nag li leer te wóor moo di aku ca man di am ndam moom mbir ma du yomb xëccoo dina am te it dina yàgg te dina metti ba noppee ku ca juum di nga ñàkk ci ñàkk ba fii ci ñi nar a nekk candidat ci gaay yi xëccoo mairie bu ndakaaru moo di Bougane Gueye Dany enquête yéenekaay ni njiitu gëm sa bopp noppeegul ndax nag nee na dafa yóbbu yëfi ca kanamu cour suprême source a moom xëy di càmbar gaay yi defoon recours ca kanamu cour d'appel journal bi coalition Yewwi Askan Wi ca lan bokk te nag tey ci gaaw bi ci la ñuy xaar takk bu dëgër ci fanu nar a waaye ba fii source nee na jàpp ni ñoom Askan Wi yi duñu am candidat ca Sinthiou Bambabé duñ ko am ca Boké Dialoubé te it dun ko am ca Mombo Sanjiri Parcelles Assainies gi ci Ndakaaru Vox Populi nee na Mamadou Wane def na fa liste parallèle samp fa ndëndëm dëkk maire ba fa nekk ndax nag Mamadou Wane nee na maire ba fa nekk di Moussa def na ca bopp maire ba fukki at ak ñeent te buñ ko bàyyee dina fa def ñaar fukki at ba tax moom du wan mu ne du seetaan lu ni mel ñu ànd dem seeti li nekk ci xët u njëkku Le Quotidien yéenekaay bi ne ca Kaolack gannaaw rapport bu nu fa def am na juróom benn juge yu cour d'appel bu Kaolack yu jàngale te dinañ leen yóbbu ca kanamu conseil de discipline ñi nar a weesu conseil de discipline ba dugg kaso moo di couple nigérien bi nekk ci libération journal bi ñaari doomi réewum Nigéria ñoo lëkkaloo ak benn Sierra Leonaise daal di jële ñeenti mineur ci réewum Sierra Leone seeni at toll ci diggante fukk ak juróom jàpp fukk ak juróom-benn ba noppi defaral leen këyit yu baaxul ngir wane ni danoo majeur yéene kaay bi ne lañ ca jublu woon moo di di leen jaaloo seen bopp waaye jamono ji ca sigi coor nekk yoon teg na leen fa loxo ñaari gaar di Thiès waaye record yéene kaay nee na jogante boobee tëggum ndëndukum sémmiñ la nar a doon neex benn naqari benn ndax nag benn match boobee moo dese gaynde yu Sénégal yi tax journal bi dinaan ndam rekk moo leen ca war ngir gën a dalal xelu askan wi record yéene kaay yokku ca ne Sadio Mané moom du ca bokk ndax nag keroog ba Sénégal di football ak waa Togo gaañu-gaañu ba mu ca jële woon bàyyeegu ko ba tax tey jii ci samedi ji dina delluwaat ca Liverpool ñu del si ñun ci Sénégal dellu ci Vox Populi ànd xooli la xew ca jul ki di dëkk bu nekk ca Linguère journal bi nee na Galo Ndiaye ab sàmm la dafa jiital ak juróom dugg àll bi ab sàmba booy kar ko dóor ko balu fital ba noppi rugat jur ga yóbbu leen jërëjëf Serigne Saliou sekk mbokk yi yéen it sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci uh, machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti rédaction bi dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen